Euh, comme ni nga koy gisee ci image yi ginnaaw bi ñu jógee si beneen euh, côté bi fële na le ñëw nañu ko ci côté euh, fu nga xamante ne moom moo jëm ci kër Ousmane Sonko sànq léegi nii rek oto policier yi egsi na fii nii ci Ziguinchor ñoom bi ñuy egsi dañu tàmbali di sandi ay lacrymogène ñi nga xamante ne ñoom ñooy manifestant ñoom dañoo répliqué ba jamono ji ñu toll nii moom situation bi tàng na trop fii nii ci buntu zone militaire numéro 5 bu Ziguinchor mooy buntu bi nga xamante mbedd bi nga xamante ne moom moo jëm ci kër Ousmane Sonko fii ci beneen côté bi nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, manifestants yi maanaam militaire ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon euh, garder Ousmane Sonko depuis euh, barki démb ñoom ñëw nañu jaamarloo ak policiers yi fu mu nekk ni moom jet de lacrymogène la ak ñu répliquer ak ay ay xeer donc jamono ji ñu toll ni fii ci Ziguinchor climat bi commencé naa tàng fii ba ci kanam rek ñu mën a xam li nga xamante ne moom moo tàmbali léegi nii fan la ñuy mën a jëm ci beneen en tout cas ci yoon yi nga xamante ne ñoom ñoo jëm ci kër Ousmane Sonko wala mbir yi nga xamante ne ñoom ñoo jëm ci yëpp ko taal nañ fa ay ay pneu tey moom euh, fii nii ci Ziguinchor amul jàng ndax école yi ñoom ñëpp dañoo tëj euh, bàyyi xale yi kër ga ndax euh, situation bi fu mu nar a mujjee kenn xamu ko donc loolu mooy situation bi nga xamante ne pour le moment moom mooy am fii nii ci Ziguinchor fi nga xamante ne kéwloo teewe na fii pour jukki leen lépp li nga xamante ne nar na fee xew ci xibaar ñun nag ñu ngi taxaw ci buntu zone militaire numéro cinq di di di leen di jukkil en direct information yu nga xamante ne ñoom ñooy ci euh, Ziguinchor te ni comme ni ngeen koy ci image yi manifestant yi ñoom taxaw nañ Sonko euh, a jaamarloo ci euh, tribunal chambre criminelle di Ousmane Sonko lii mooy nag li wax ak yéen fii ci Ziguinchor da ngeen di ànd ànd ak ñun ñu jukkil leen en direct et en exclusivité ci Kéwoulo ci image li nga xamante ne moom mooy xew jamono ji ñu toll euh, Sonko nag moom am na ay naataangoom ñu yu bëree ne euh, jóge nañ ci Ndakaaru sànq léegi nii rek gis nañ tamit ki euh, di David Diatta ànd ak ay naataangoom tamit di ci kër ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko ñoom nag ñu ngi tëju ci biir kër Ousmane Sonko ba léegi nii jamono ñi ñu wax ne ak yéen ñun ñi nga xamante ne ñoom ñuy journalistes yi bët ki nga xamante moom mooy di Ousmane Sonko mais lu wër ba wër mooy euh, ki nga xamante ne moom moo di euh, Ousmane Sonko ay naataangaam moom ñëw nañu jógee Ndakaaru ñeneen ñu jógee fépp ci Casamance ci euh, Sénégal ñëw dooleel ko ñëw wàllu su ko ci situation bi nga xamante ne moom lay dund jamono ji ñu toll nii te mu ñel procès en appel à la chambre criminelle nga xamante ne nan lañ cee jàmmarloo ki nga xamante ne moom moo di Adji Sarr